Euh, nekk tamit euh, responsable politique APR ci euh, commune bu Réfane Réfane nag nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel jàngalekat la tamit ci université Cheikh Anta Diop bu dakaar directeur général la tamit ci benn direction xam naa ne bu ñu duggee ci waxtaan wi danañu ci ànd ak yéen monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jili di nuyu ñëpp ñu ñuy suivre ci pencum réew mi. Hmm. Euh, di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëñ Mountakha Bachir Mbacké ak xalif généraux yi ci réew mi yëpp euh, di nuyu tamit euh, son excellence le président de la république et tout son gouvernement mais may beral nuyoo waa région de Diourbel di ko beral nuyoo waa département de Bambey mais aussi di beral nuyoo waa commune bu Réfane bi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu ñu jiital ma ma nekk seen maire ma ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal yëpp. waaw euh, jërëjëf euh, monsieur le maire fi ñuy doore rek mooy li nga xamante ni tey moom mooy grève bi mu nekk euh, grève boo xam ne transporteurs yi def nañ ko ci biir réew mi yëpp mu nekk grève boo xamante ni tamit tey mën nañoo wax ne ñu baree bari suivre nañ grève boobu ba ñu bari am jafe-jafe tamit ci wàllu dem bi ak wàllu dikk bi yow nan nga ko dundee ak lan moo ci sa xalaat. waaw en fait ni ma ko dundee mooy dañ ko dund ak tristesse hein parce que ku gis dëkk bi nu mel ñetti fat yi euh, daanaka vraiment activité yu bëri taxaw na euh, ndax euh, manqué transport activité nag bu taxawee day impacter négativement ci économie réew mi day impacter négativement ci poche u borom kër yi day impacter négativement ci li ñuy wax panier de la ménagère loolu nag baaxul ci réew Euh, daf daf koy xaw a delloo ginnaaw ci mbirum koom-koom euh, suivre naa aussi péripétien déglu naa déglu naa transporteurs yi seen i ñaxtu. Euh, déglu naa aussi ministre bi. mais je pense que transporteurs yi li ñuy li ñuy ñaxtu mën na lu xel mën a nangu la mais nañu xam aussi ne état dafa am nu muy doxe gouvernement dafa am nu muy doxee. je pense que Mansour fay le ministre des transports euh, moom mooy le principal concerné c'est vrai am na yeneen collègue yoo xam ne ils sont concernés muy finance muy muy muy eaux et forêts intérieur muy environnement muy armée ñooñ ñëpp d'accord naa ne ils sont concernés mais comme li ñu wax euh, gouvernement daf dafa am li ñuy wax solidarité gouvernementale mm-hmm. benn ministre Mansour Faye war na mën a wax au nom tout le gouvernement d'autant plus que mooy ministre bi nga xam ne mooy ministre sectoriel bi. kon vraiment li may wax euh, li may wax transporteurs yi mooy ñu ngi ci seen droit pour vraiment laaj ñu améliorer seen conditions yi. mais bu dee euh, mais mais mais mais bu leen le ministre Mansour Faye woowee aussi vraiment man jàpp naa ne waxuma la sax le gouvernement mais nañ jàpp ne le ministre Mansour Faye. day teewal tout le gouvernement mais ainsi day teewal sax le président de la république man li ma leen di suggérer mooy nañu dem négocier ak le ministre Mansour fay d'accord mais euh, mais tey euh, wax ji mooy euh, transporteurs yi ñoom ba ñu ñëw woon a gisante ak ministre Mansour Faye ndax gisante woon nañu ak moom grève bi nga xamante ni sumboon nañ ko fi mais booba Mansour fay dafa waxaloon yeneen ministères yi. mais kayit bi ñu leen joxoon tey ñoom bu ñu demee ci takk der yi dañu leen di wax naan leen euh, kayit bi bu lu Mansour fay signé la te Mansour Faye du suñu ministre de tutelle loolu moo tax transporteurs yi ñoom même bu ñu amoon kayit boo xam ne ministres yooyu yëpp ñoo koy signé mais ñoom loolu moo tax ñu ne léegi comme Mansour fay waxoon na leen loolu te kayit boobu jër jërëñu leen dara ci ci gendarme ci gendarme yi ak ci policiers yi moo tax ñoom dañu bëgg ni Mansour Faye jëlee engagement ministre de l'intérieur jël ko ministre des forces jël ko waaw en fait li nga wax déglu naa ko ah effectivement loolu la ñu wax. Hmm. donc dañ njëkk a signé accord ak le ministre Mansour moo tax dama dama jàpp ne sax même grève bi mënoon na ñàkk xam nga lu tax. Hmm. mënoon nañu génn rek def sorti ne ministre Mansour Faye la nga signé woon ak ñun sa yenn naataango yi nangu lu ñu ko. Hmm. ne président la république. li ñu signé woon ak le ministre Mansour Faye yeneen yi nangu lu ñu ko. man je pense que bu ñu yemoon ci loolu. wax loolu rek je pense que président de la république dina jël dina jël ay responsabilités am ministre Mansour Faye aussi dina ci gën jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqal ñu di ay collègues am pour ñu régler définitivement le problème parce que fi mu ne Sénégal yëpp d'accord nañu ne Mansour fay def na la mu waroon def xëy na aussi ma ma euh, des na tuuti iwilewul trop xëy na ci ci collaboration bi parce que tamit un ministre ki qui qui signe wax mais il engage tout le donte mooy ministre de de de de de des transports mais gouvernement bi yëpp lay engagé. day engage le ministre de l'intérieur day engagé le ministre des finances ñëpp lay engagé peut-être xëy na foofu aussi mooy li wax léegi bu ñu génnoon juste rek. ne monsieur le ministre Mansour fay la nga signé woon ak ñun am na ñoo xam ne say nattangoo ñooy seen kilifa nangoo lu ñu nu loolu man je pense que bu boobaa problème bi mënoon na sax réglé te duñ dem grève. waaw mais xam nga tey euh, même ñoom transporteurs yi bi ñu expliqué Mansour fay mhm. euh, cas bi comme par exemple tey si policiers ak gendarmes yi. Mansour fay sax dafa merci lan moo tax ñooñu jëfewuñu ndigal boobu mais boobu nag ministre de l'intérieur tey wala ministre des forces armées ñoom mën nañ si bind euh, man nañ si bind lettre mën nañ si bind benn communiqué mais defuñu ko si fi mu toll nii euh, waxtaan dina am euh, force déggoo dina am mm-hmm. te lii wëy wëy na ba pare ndax am na économiste yoo xamante ni ñoo ngi wax presque ay trente milliards yoo xam ne ay perte la loolu tamit est-ce que tey euh, comme ñoom amoon nañ benn préavis de grève ñu xam ne dañuy grève le premier et le deux booba li ñuy mujjee ni mënoon nañ ko njëkkee mais en fait euh, en fait euh, ñoom bi ñuy bi ñu joxee préavis mais le ministre su Faye woon na leen ah hmm. ne leen kaay leen ñu waxtaan avant ñuy yegg ci préavis bi mais ñoom ñoo ko waxoon danoo nekk tournée ça veut dire que quelquefois ah. dañ koon dañu dañu dañ ne ko woon ñoom defar nañ tournée ba pare yow xam nga tey mair nga. xam nga sooy dem tournée. Mm-hmm. Euh, il faut nga teg say programme. Uh-huh. Euh, say élément yooyu yëpp da koy teg. Mm-hmm. ñoom dañu kale woon seen mbir ba pare. Mm-hmm. léegi nag bi leen Mansour fa waxee dañ ko bind lettre na ko léegi dañu bëgg nga dekkale ko. mais non non xam nga li tax ngay dem tournée. bu fekkee ne nañ kaay nu waxtaan ci. mais demal nga waxtaan ci xëy na ngeen trouver solution tournée bi sax dootu ko jar. est-ce que li taxoon ñuy dem tournée mooy grève bi. ne leen kaay ñu waxtaan ci grève bi mais nañu dem bu ñu demee bu ñu waxtaanee xëy na déggoo bu boobaa tournée bi sax jaratu ko parce que la taxoon ñuy def tournée la taxoon ñuy bëgg a waxtaan nañu ba déggoo ci. le ministre Mansour Faye c' est quelqu'un que je connais très bien parce que mooy sama kilifa fi ma toog nii. Euh, dañuy def ak moom réunion yu bëri ñu xam lu bëri ci pas-pasam ak yéeneem ak euh, ni mu fonkee ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi muy gérer daf ko def comme comme njabootam. Mm. li ma biir mooy semaine jour de grève moom la gën a metti wala boog ci ñi mu gën a métti ci Sénégal la bokk donc vraiment man li may suggérer. Mhm. transporteurs yi mooy nañu dem toog ak moom. parce que déjà le fait que rek ñu ne ko euh, ñi sa sa nattaangool yi nga bokkal ñoom ñi ñu yilif nee nañ sa signature bi concerné concerné wala waaw déjà loolu mu le fet ko mu xam ko rek man je pense que c'est c'est un pas pour ñu régler problème bi mhm. parce que xam naa ci moom fulla bu tool ni dina woo président de la république ne ko ah man kat dama signé woon su ma siñee ça engage tout le gouvernement waaye nee nañu ma yeneen naataango yi ñi ñu yirif nee nañu loolu concerné wu leen xam naa fulla bu tool ni moom bu toll bu nekk ci moom aussi bu toll ni du du du du yéem a woo ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo ne ko sa service des douanes li ma signé nee nañu engagé te daf leen war a engagé mën na ko def ak ministre de l'intérieur mën na ko def ministre euh, de l' environnement mën na ko def ak ministre des forces armées parce que moom ku ubbeeku la kuy waxtaan la. kon vraiment li ñu li may suggérer li may suggérer encore une fois na nu delloo si xel yi parce que 30 milliards du caaxaan. du caaxaan 30 milliards c' est plusieurs hôpitaux yu ñu mën a tabax. 30 milliards mën na def lu bëree bari ci Sénégal te chaque jour peut-être bu bu fekkee chaque jour 15 milliards la bu ñëwee dans 4 jours ça va loolu mais mais monsieur le maire tamit euh, dañuy gis ne euh, gouvernement bi am na ci ay ministères yoo xam ne ñoom li ñu tàmmal euh, syndicalistes yi mooy dañuy bàyyi syndicats yi dugal seen préavis de grève duñu leen faale bañ commencé grève ñu doog leen a woo négociation comme négociation si lay mujj kay lan moo tax ñoom mënuñu am grandeur di ko njëkkee ñoom ñi ñam ñoo jiite te ñoom ñooy signé accord yoo xam ne duñ ko faral di respecté. no mais en fait genre ministre yooyu Mansour bokku ci. Hmm. c'est du ko rëy. est-ce que du lu muy sa sa patron. non du tout du tout man ku ma xam xam ne du ma du ma caresser dans le sens des poils man li ma li ma gëm laay wax su ma xamutoon loolu ci moom xëy na solidarité mën na tax ma noppi mais du ma du wax safaan du ma wax safaan maanaam li li ma ko xamal bu ma ko mënul wax muy dëgg ma noppi moom rëyul la preuve mooy ñoom euh, wax nañ ko sànq. les syndicalistes eux-mêmes reconnaître nañ ne Mansour Faye woo na leen ba tey nii moo ngi leen di woo. mais ñoom ñoo campé ci dafa war a ànd ak yeneen naataangoom yi. nañu xam ne aussi état solidarité gouvernementale mooy waral benn ministre fu mu teew teewal na fa tout le gouvernement teewal na fa le président de la république. maintenant kay nañu insisté ci li ngay signé na concerné sa yeneen naataango yi ñi ñu yilif muy douane muy gendarmerie muy police muy eaux et ak ku mu jëman di doon nañu gën a insister je sais que aussi parce que tamit am na loo xam ne ci état du lu ñuy wax ci kaw. du lu ñuy wax ci mbedd mi mais li ma biir mooy ministre yeneen yi ñu tuddoon yëpp kenn ku ci nekk woo nga ña nga yilif ne leen attention signature bi Mansour Faye signé en tant que ministre des transports yéen donte ci sama tutelle ngeen nekk def leen di engagé. parce que sa signature engage le gouvernement. man gëm naa ne benn am na yoo xam ne des ko wax ci pénc. mais gëm naa ne kenn ku ci nekk service ba bokk ci yow nee nga leen attention la signature de Mansour Faye est aussi valable que la mienne. même buñ ko waxul kaw même buñ ko waxul ci kaw. Hmm. même buñ ko ci kaw man li ma biir mooy problème bi ñu posé nii réglé na man loolu laa gëm. d'accord donte xëy na euh, toogaguñu signé accord. Hmm. mais gëm naa ne le président république ak l'ensemble du gouvernement jël nañ seen matuwaay. pour que problème bi réglé définitivement. Hmm. Euh, ma ma ma ma ñëwaat aussi Euh, ci par rapport ak seen point de revendication yi sans avant ñu koy def point de revendication ñun toog nañu au sein du ministère des transports ba ba tàyyi muy directeur des transports routiers muy directeur des routes coordination ministère bi yëpp toog nañu ba tàyyi ak le ministre ñuy ñaawlu di mettitlu concurrence déloyale bi nga xam ne euh, transport irrégulier bi moom lay indi ci dëkk bi ak ni mu sonnale taximaan yi ak ni mu sonnale sept place yi ak ni mu sonnale car loolu toog nañu ba tàyyi foo xam ne benn seen syndicaliste nekku fa ñun rek ñoo fa nekk waa ministère. di def suñuy réunion di ko ñaawlu ak di xool nan la ñuy def ba arrêter transport irrégulier bi nan la ñuy def ba ki nga xam ne métier am da di transport mu dund ci métier mais la ma tax ba léegi saafara amu waaw xam nga problème aussi bu posé woo pour nga am solution tout de suite mën na jafe ah parce que c'est très complexe lu compliqué la. parce que d'ailleurs quelquefois sax man damay damay yéem policiers yi ak gendarme yi nan la ñuy def ba xamee ne oto bi transport irrégulier lay def parce que bu fekkoon ne oto bi euh, particulier la moom lay niru nga yeb ci nit xamoo say nijaay nga yëpp xamuñu say bàjjen nga yëpp xamuñu ko yëpp donc c'est très compliqué pour nga maîtriser ko parce que dañuy niroog mook sa oto ak sama oto ak oto keneen ñoo niroo donc c' est très compliqué lu jafe lu jafe lijjanti la. mais est ce que ministre des transports mën na ko lijjanti sans ministre de l' intérieur wala ministre des forces armées. non mais mais mais mën na ko lijjanti du doon sans def koy lijjanti avec eux maanaam ñooñu il faut ñoom aussi. ñu bokk ci mais ni ñu ciy bokkee mooy bu Mansour fay signé en tant que ministre mu engagé leen ñoom en tant que ministre du même gouvernement bu ko defee douanier bi xam ne euh, désormais lee ñu signé fële daf ko concerné Euh, gendarme bi xam ko policier bi xam ko ki nekk eaux et forêts xam ko loolu rek mooy l'essentiel ñu xam ne euh, ñoom dañu ko war a endossé dañu war a yanu signature bi nga xam ne le ministre Mansour Faye moo ko yanu ah. ñu respecté ko à lettre liggéey ak transporteurs yi ba li nga xam ne moom moom la ñuy ñaxtu muy luy metti loolu yàlla teggi ko. d'accord euh, monsieur le maire Djibril Thiaw yow yaa jiite centre de formation et de perfectionnement des travaux publics centre bi dafa. nekk ci euh, ministère bi ñu dénk wàllum euh, dem dikk bi wàllum transport euh, centre bi lan mooy liggéeyam dëgg. waaw centre bi comme ni ko ni ko tur bi tëggee rek formation ak perfectionnement maanaam formation pour ñi nga xam ne amaguñu métier ñu jël leen former leen en topographie wala en géotechnique wala point datant ay formation modulaire pour que ñu mën a am métier boo xam ne mën nañ leen ci employé mais aussi perfectionnement. mooy ingénieurs yi nga xam ne dañu nekk ci secteur bi ingénieur génie civil yeeg ñi demee noonu nga xam dañuy liggéey ci mbirum tëli di liggéey ci mbirum entretien routier ñoom jàng nañ ba pare mais dañuy def yenn saa yi ñu dajalewaat leen pendant cinq jours euh, yokk seen xarañte ci benn mbir mën na nekk ci benn logiciel mën na ba nekk ci benn technique bu bees boo xam ne dañ ko introduire ci génie civil wala yu demee noonu donc ñooñu dañ leen di dolli xam-xam ay ingénieur lañ ba pare mais yenn saa yi dañ leen di dajale da pendant cinq jours wala pendant six jours pendant quatre jours dolliwaat leen xam-xam mais lépp day tourner autour des travaux publics day tourner autour des transport ak euh, métier connexe yi nga xam ne day day day ànd ak. génie civil. d'accord mais monsieur le ministre euh, ñu benn laaj rek ci euh, wàllum transport bi doog a jàll ci leneen ñun dañu gis ne li nga xam ne tey syndicalistes yi ñoom ñoo ngi koy ñaxtu. muy wàllum jafe-jafe yi ñu am ci kaw tali bi ak wàllum concurrence déloyale bi nga xamante ne am na ñun loolu bien vrai que ñoom grève nañ même bu dee bàyyi nañ grave bi euh, Sénégal perte na si ay milliards yi milliards yi milliards mais mbir la moo xamante ni man bokk naa si ñi jàpp ne pour ñu régler ko ci Sénégal dina nekk loo xamante ni tey euh, lu lu lu jafe la. waaw lu jafe la effectivement comme ni ma ko waxee sànq mais euh, il faut aussi ñu jëm ko regle parce que tamit mënuma concevoir ki nga xam ne dafa jóg ne damay investir ci transport muy sama métier mooy sama liggéey. jëlay million investir ku ci bu fay taxe jotee mu fay taxe bu visite technique jotee mu dem def visite technique maanaam nekk en règle dagg assurance nekk en règle keneen koo xam ne nekkul en règle dem jënd ab otoom rek ñëw di di xëccoog moom li mu ci warul gagné te du fay taxe du fay droit de stationnement fay dara dara dara dara kooku vraiment métier du transport nañu ko ci génnee ki nga xam ne mi dafa jël métier daf ko muy transport mu nekk en règle li mu warloo ak état ci ay koppar ci ay tax mu di ko fay kooku dañ ko war a protéger. waaw mais yéen xam nga yéen yor euh, ministère des transports mais nekku leen ci kaw tali bi du ngeen policier du ngeen gendarme te tey ñun ñëpp xam nañ tali bi ni mu demee ñu nga xamante ni tey ñooy def transport ci anam boo xamante ni bu dëppoowul ak yoon la ñoom bu ñu yoree seen xaalis fu ñu leen arrêté ñu joxe fa 1000 francs wala 2000 francs dem même ministre Mansour Faye loolu moom yem na si fi nga xam ne mooy Kébémer ba ñu sanctionné euh, takk der yi nga xamante ni ñoo nekkoon foofu mu nekk fee boo xamante ni man xam naa ko Mansour Faye xam président xam ko te xamante ni bu jafe la génne ci Sénégal ban taxawaay kon la ci euh, la ci ministère euh, de l'intérieur moom tim war a amee. waaw non euh, en fait xam nga da ne ñun nekkuñ ci tali bi. Mm-hmm. ah kay ñu tali bi parce que ña nekk ci tali bi ñun lañ fa nekkal en réalité policiers gendarme yi douane yi niñ fa nekkale ministre de l'intérieur niñ fa nekkale ministre de l'économie et des finances lañ fa nekkale ministre des transports ils sont là-bas pour l'État l'État est un l'État est unitaire. kon lu ñu fay def rek ñun lañu koy defal au sein di ministère des transports maintenant euh, bon <laughs> c'est vrai que bëggum bëgguma stigmatiser mais euh, li li nga xam ne moo war moo jaadu pour que tracasserie yi arrêté pour que euh, transport irrégulier bi arrêté mooy li ñuy wax léegi c'est très compliqué lu jafe li lijjanti la mais bu li ma gëm mooy bu état bi jàppee fi mu war a jàpp acteur di transport jàpp fi ñu war a jàpp ñu àndante mën nañ ko xeex bu jëlee ko fi wala bu fi jógul aussi dana néew lool mais nag bu ñu fàtte ne aussi transport irrégulier dafa mel ni da di une tare congénitale dafa judduwaale ci transport Sénégal. parce que ñun ñëpp xam nañu lay clando. clando donc naturellement mooy transport irrégulier. donc c'est une tare congénitale dafa judduwandoo ak transport ci Sénégal euh, dama doon waxtaan barki démb ak benn waay mu ne ma transporteur yi di di di kaas sax. am nañ ci am ay kalando muy dëgg am nañ ci am ay war gaynde muy dëgg donc ça veut dire c'est très compliqué. il faut que ñi taxaw si kaw tali bi tamit amuñuy kalandoo ab ah, loolu tamit dégg naa ko. loolu dégg naa ko ah, voilà loolu dégg naa ko mooy moo tax problème bu compliqué la mais def ñu ko dañ ko war a xeex parce que tamit ay nit ñoo ci jël seen xaalis investir ci mu nekk seen métier ñooñu dañu leen war a protéger sinon dinañ dem ba day gën a désorganiser wu parce que bu dee bu ñu demee ba kenn nangootu cee investir pour nekk ci professionnel pour nekk en règle day gën a désorganiser wu te loolu baaxul ci réew. d'accord baaxul ci réew. jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Djibril euh, Thiaw mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM monsieur le maire nag ñu daal di wax ci li nga xamante ni tey moo jëm ci élection locale yi élection locale yi dañu gis ne élection local daana ñëw. Euh, Sénégalais yi baree bari daawuñu ko bàyyi xel enjeu yi fi am nii dafa mel ni daaw si am ñu gis ne tey ñu baree baree bari ay ministre ay directeur général ñu bari di xëccoo mbir mi nekk loo xamante ni daal ma ngi mel ni ay présidentiel euh, enjeu boobu euh, daw bay mel ni luy daanoo lan nga jàpp ni moo ko waral. mirage mirage li tubaab di wax mirage hmm. maanaam nga taxaw seen dara mu rafet nga foog ne or la fi mu nekk ñëpp dañu foog ne. Euh, nekk maire moom boo ko defee tekki nga te xamuñu nekk maire en tout cas bu fekkee yaa ngi sàmmonte ak li war maire gisuma lu gën a metti nekk maire. mais nag non mais yow maire nga ci monde rural bi mais est-ce que nekk maire monde rural ak nekk maire ci ville yi que c'est la même chose que benn la. non du benn du benn là je d'accord mm-hmm. parce que dans le monde rural. lu dul pres presque li nga xam ne day jóge ci état mooy ay fonds de concours ay fonds de dotation lu dul loolu pratiquement maire yi yi ci monde rural bi amuñu dara mm-hmm. mais même si c'est en ville nga xam ne am na ay recettes yuy dugg recettes yooyu boo xoolee li la war ci commune bi nga def ko ci du sax doy ya y'a combien de communes yoo xam ne tey dañ la naa ils ont un milliard de budget mais boo duggee ci ci biir communes yi à part route ya fa état def y' a rien jéemu ñoo def pavage jéemu ñoo def route jéemu ñoo def te pourtant ñoom la war. waaw mais est ce que ñoom ñoo góorgóorluwul rek. wa bon euh, xëy na ñoom ñoo góorgóorluwul xëy na ñoom ñoo góorgóorluwul mais encore une fois muy maire de ville mais ci nekk ci ci ci ci rural monde rural walla ci biir taax yi ku ci def li nga war a def ku ci xam dayob liñ la sas. di nga sonn. waaw mais xam nga tey monsieur le maire yow euh, dinañ ñëw sax xam naa ne ci sa ci sa mairie ak euh, lan nga fa def mais yow par rapport yaa ngi dakaar gis nga yenn vi yenn mairie yi nga xamante ni tey ay marché yu mag a mag a fay nekk. Mhm. par exemple tey marché bu mel ni HLM. xoolal marché bu mel ni tey euh, Castor marché bu mel ni Tilène ay banque nekk fa ñii di fay li ñii di fay li euh, ay ay lu ne ñu man ko organiser foofu maire yooyu mu xam nga yow ne maire yooyu boo duggee seen commune da ngay gis ne ñii liggéeyuñu te pourtant ay xaalis bu baree bari moo fa génn yow war nga xam ne xaalis boobu. soo yoroon di nga def dara. non du ma wax liggéeyuñu de ñoo ngi liggéey. non man maa jàpp <laughs> waaw en tout cas pour pour pour dire vrai euh, mairie yi nga xam ne damay gis ñoo par exemple def budget huit cent million 900 millions mais ay la yeneen am na ci mairie yoo xam ne du du premier décembre du premier janvier. Mhm. au 31 décembre. tu peux te poser la question lan moo fi soppeeku. lan moo fi soppeeku effectivement. lan moo fi soppeeku malgré un budget de 800 900 1 milliard quelquefois en toute sincérité bokkuñu ak ñun ñi nga xam ne donte li ñu am bëriwut ay ab kañ nga am am na dëkk bu taxaw fële naa laa amuñu courant. Mhm. ab dëkk taxaw fële naa laa amuñu ndox. ab dëkk taxaw fële naa amuñu amuñu école alors que communes yi déjà amatuñu problème courant Sénégal def na courant fépp amatuñu problème ndox c'est l'état qui s'en charge totalement à travers la SDE et cetera c'est-à-dire quelquefois tu te poses la question. mais, mais bon mais amuleen amu garage bu ngeen fortaatoo dara. amu leen amu leen marché chez chez rien. Hmm. peut-être xëy na quelquefois à dehors de ce que état duñ jox xëy na am na communes yoo xam ne euh, mun nañu am dara ci frais de bornage. boo defee lotissement li nga xam ne ki war a dëkk moom lay dem fay ko trésor mais loolu aussi pratiquement bëriwul donc li ci des mooy dem wuti ay partenaires te partenariat aussi fi mu nekk nii c'est très compliqué. parce que mairie yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. Mhm. Euh, depuis depuis quelques années. depuis de dix ans ñoom aussi elles ont des problèmes comme tout le monde. d' accord léegi kenn ku nekk sa bopp euh, gis nañ ne élection locale yi am na ay enjeux xëccoo bi bëri na euh, yéen benn bokk yaakaar gis nañ tamit ne bëri ngeen ay liste parallèle lan nga jàpp ne moo ko waral. yi en fait boo ko boo ko gisee man je que mooy déjà dañu nekk en concurrence ñun ci suñu biir. ñun waa Bennoo ñun waa Bennoo da dem dans une commune. fekk fa ñaar ñetti ñeent yoo xam ne kenn ku nekk dafa jàpp ne a jiite kenn ku dafa jàpp ne dafa war a nekk maire pour président xam ko pour nommer ko dara te loolu baaxul. mais am na ñu koy def ñoo xam ne président xam na leen tey par tey Mary Teuw Niane mënoon ne président ko euh, Mamadou Mamour Diallo mi nekk Louga mënoon ne président xamu ko Mbaye Ndiaye Mame Mbaye mi Mame Mbaye Niang mi nekk Dakar kooku tamit mënoon ne président xamu ko. te ñoom taxawal nañu. am na ñoo xam ne doonte président xam na leen dañuy jàpp ne dañoo war a jiite pour yu fal leen leneen. ok dañu parce que euh, pour ñoom la légitimité di du de l'homme politique et c'est mooy ne est-ce que am na un mandat électif est-ce que gox ba mu dëkk daje nañu fal ko dara. te loolu moom je pense que moom c'est c'est fondamental quand même nañu ko nangu. Euh, euh, mais est-ce que du aussi. non si si si c'est très légitime mais à côté de cette cette légitimité là man dama gëm ne bu fekkee danu gëm nu ne président de la République la ñu àndal Macky Sall bu fekkee dañu gëm ne suñu gis-gis ak suñu bëgg-bëgg mooy suqali dëkk bi bu ñu fa dee ñett wala ñeent ànd ak président de la République Macky Sall war nañu mën a daje fàtte suñu bopp jiital kenn ndamal président lay doon suñu ndam lay doon. Mhm, maintenant bu maintenant ñi nga wax fii par exemple bu fekkoon ni par exemple à Saint-Louis Mansour fay ak Mary Teuw Niane ak ñi demee ni ñoom dañu ànd toog waxtaan ci seen biir te yàlla tax ñu jiital kenn gañe kenn ku ci nekk sa xam-xam ak sa capacité ak li nga man ci leneen nga ki ñu jiital nga jàppalee ko ko pendant cinq ans mais mairie ba ñu nekk dañ koy transformer totalement kenn ku nekk na ñëw ak générosité ci xam-xamam ci am-amam ci man-manam ci carnet d'adresse am autour du maire bi nga xam ne ñoo daje ne ko jiitul kenn ku ne fàtte sa bopp mais kenn ku ne dafa bëgg a fés affaire fait de compte mais man nag euh, man beneen gis-gis laa si am dama gis ne président Macky Sall dafa am ñu àndal ñoo xamante ni euh, mën naa ne respecté wuñu ko wala wégguñu ko wala déggalatuñu ko ndax tey par exemple yaa ngi wax sànq man gis naa ne am na ñoom am na ndax Mary Teuw Niane am na lu ñu ko nommé euh, soo xoolee tey Mame yi Niang am na lu ñu ko nome boo xoolee Mame Boye Diao mi nga xamante ni moo nekk Kolda moo nekk directeur des domaines euh, ma gis ne président am na ñoo xam ne te nee woon na bëgg fee gis euh, ay ay ay liste parallèle mu mel dafa am ñoo xam ne dañu taxaw pour défier président. bon bon peut-être défi je ne sais pas wala aussi principe parce que am na ñoo xam ne aussi seen principe mooy li ma décidé dama koy def bu fekkee ni c'est ça leur principe aussi je n'y vois pas de mal mais mais su ma nekkoon président la république ku jóg par principe. nga ne man damay nekk candidat parce que gëm naa ne kii maa ko gën a euh, bëgg réew bi wala boog gëm naa ne li ma fi man mënu ko fi ba dama lay seetaan mais au cas où tu perds ah, ma rendre compte parce que tamit mënuñ mënuñu nekk dans un dans un dans un parti aussi désorganisé loolu baaxul ci parti. est-ce que du jiit li la neex. Euh, non neexul président parce que man je l'ai suivi. il dit que dans tout le Sénégal ñaari commune rek la fi autorisé mu am liste parallèle benn bi mooy Mame Diop Mame Boye Diao dont tu as parlé tout à l'heure Kolda ñoom ñaar ñëpp muy Mame booy Diao muy Bibi Baldé ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk président ne la la demal là y a pas de problème c'est valable pour Bignona muy muy muy Aubin Sagna muy muy Keita Mamadou Lamine Keita kenn ku ci nekk président ne la demal mm-hmm. mais ñi ci des ñëpp kenn ku nekk à mon humble avis loolu président wax donc amoon mon humble avi kenn ku ci nekk peut-être par principe wala par défi yaa xam la la tax nga def ko demal nga sa bopp liste mais à l'arrivée man je pense que euh, su ma dem président je vais leur demander des comptes. bu ñu pertee. ah oui. bu ñu pertee dina jar sanction. si nit koo xamante dafa jóg pour jiite goxam. bon ça ça ça dépend parce que tamit euh, li jóg pour jiite sa gox mais ki nga fi nekkal. mu def résultat ngeen bokk benn parti bi ngeen ne yéen bokk gis-gis xanaa kon bokkatu ngeen gis ba ba ànd ak président Macky Sall nest bu ñu bokkee ànd ak président Macky Sall ça veut dire bokk gis-gis noo bokk jëmuwaay. waaw non mais man damaa gis ne monsieur le maire yow ku la jiitu lu doon reefal nga demal sa bopp man loolu gis naa loolu. mais parce que mooy logique bi. non dama ne ku la jiitu lu nga demal sa bopp. waaw mais dégg nga loola parce que mooy logique bi. j'ai un mais su fekkoon ni fekkut man am bilan bu mu war maanaam bu fekkoon keneen moo nekkoon meeru Refat ma bokk ak moom biir APR ñu bokk ànd ak président la république moom mu nekkoon meeru Refat pendant ce mandat man pare naa pour aligner wu topp ci moom ñu ànd défendre bilam pour que le président la république bi nga xam ne moom la ñu àndal ñu mën a jëmmal gis-gisam émergence ci suñu biir commune muy commune Refane parce que ah, bu ñu def at bu ñu réere mbir aussi ne jëmmal gis-gisu président maanaam fexe suñu commune yi émergent mais man bu fekkee dañu war a dem dañu war a dem rek pour que maa jiitu maa gën a fës maa ëppi nit kooku war nañu dépasser loolu nañu dem parce que dañu bëgg Réfane jëm kanam. nañ dem parce que dañu bëgg suñu commune bi jëm kanam. te pour ñu jëmale ko kanam nañu fexe li nga xam ne moo la président de la République di xalaat ci kaw ñu jëmal ko ci suñu commune. boo ko defee émergence mën a ñëw. d'accord euh, monsieur le maire gis nañ ne bëri na ay liste yoo xam ne tey euh, euh, ñi nga xam ne ñooy préfet yi ak sous-préfet dañ ko rejeté ci opposition bi mais li jaaxal ñu baree baree bari mooy amul benn list benn bokk yaakaar ci Sénégal li muy rëy rëy rëy benn bis list benn bokk yaakaar boo xam ne tey euh, rejeté nañ ko te munoo wax ne ci communes yi wala ci yenn département yi ña fa nekkal benn bokk yaakaar ñoo gën a xam ay élection ña nga xam ne ñoo nekk ci gox yooyu loolu lan moo ci sa xalaat. Euh, li ci sama xalaat mooy waa benn bokk yaakaar dañoo teel a jóg dem déposé ji man bi may sama liste mii di jotul. xaaruma yi ñu may forclos ñi ñu fi forclos ñuy wax yépp di dem recours ku ci demoon midi loolu du la fekk ku ci demoon la veille bi ñu ne suba la ñuy clôturer loolu du la ci fekk mais man dama mënul concevoir ngay da nga bëgg a nekk maire ñu fixer calendrier électoral bi six mois avant nga xam ne jour tel la ñu koy tëj à yi pour dépôt six mois avant xam nga ko bu ñu fàtte ne six mois avant xamoon nañu ne le trois la ñuy clôturer nga toog toog toog ba le trois à minuit mooy cinq boo crevé ci yoon bi nag sa diggante kër ak diggante Lambaye su préfet wala préfet Bambey wala beneen préfet te 6 mois avant xamoon nga ne boobu mooy date bitoire bi le problème mooy en réalité y a beaucoup de gens yoo xam ne ils sont dañu yuuxu fépp candidat la candidat la. mais pare wuñu mais pare wuñu mais ku pare cinq heures nga dem déposer wala midi wala buñ ñu nee suba la sax nga dem déposer. man bi ma demee làmbaay di déposé benn liste laa fekk kooku opposition la ñu ne ma démb la déposer kooku kenn forklowu ko kooka. day bokk waaw mais mais ko bañ a forkloo mais yenn correction yi est-ce que danañu permettre opposition bi joxaat leen seeni dossier ñoo di correction. non duñ la joxaat dossier yow dossier bi nga joxe bu gars yi buñ ko càmbaree dañ lay woo ne la nangam nangam nangam sikk na ci ñëwal rek ñoo rek ñoo rectifier ko. te képp koo xam ne forklowuñ la te a eu te a eu ce droit là. bu ñu fàttee yow jii li nous avons une bonne administration territoriale gis nga l'administration territoriale la police la gendarmerie man bu ñu leen di sànni xeer damay tiit xamul tax hmm. le préfet ñi ci ëpp fi mu ne nii wala gouverneur wala su préfet ñi ci ëpp wala ñu ci bari bokk ba ñuy nekk préfet président Macky Sall falu nekk président de la république te am na ci ñoo xam ne aussi. président Macky Sall dina jeexal ñu ko ne nekk préfet wala gouverneur wala sous préfet wala commandant de brigade wala commissaire cest à ñooñu seen seen seen carrière c'est pas lié au régime kon vraiment am nañu opportunité pour être neutre pour être élégant te man ñi ma ciy dajeel ñu ci bëri bokk ils sont très élégants ils traitent surtout bu élection jotee dañuy yemale ñëpp mais mais mais monsieur le gis nañ ne euh, opposition bi ñoom euh, Ousmane Sonko Khalifa Sall Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu euh, président Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw yenn préfet yi nga xamante ni tey def nañu recours cour suprême ndax cour suprême dafa dafa rejeter dogal yoo xamante ni tey. préfet yi ak sous-préfet yi jëloon ko ndax préfet yi ak sous-préfet yi dañoo gàntaloon ay liste yoo xam ne ñooñu bi ñu demee cour suprême cour suprême dafa wax ne préfet yi nekkuñu si dëgg waaye dañu gis ne préfet yooyu yemuñu foofu mais ñoom dañu dem cour suprême ngir def recours loolu nag ñoom Yewwi Askan Wi dañu jàpp ne président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw préfet yooyu. waaw bu ñu nee président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw préfet yooyu mën na ma d'accord xamul parce que ñoom état lañ président Macky Sall moo incarné état c'est-à-dire là on fait la la distinction entre la figure de président de la république Macky Sall nga xam ne institution la mais ñoom dañuy bëgg a jouer amalgame présenter Sénégal yi ne le Macky politique moo nekk seen ginnaaw su préfet yi ak préfet yi c'est des agents de l'état état moo leen fa teg kon état warul nangu aussi ñu leen di fragiliser. bu fekkee ni dañu leen dañu dañu dem xaar mais opposition bi li ñu bëgg a def nii parce que bu fekkee ni su préfet bi en âme et conscience dafa jàpp ni kii dañ ko war a forclos cour suprême bañ a jàpp loolu mais mais àtte yemut foofu bu d'accordut bu état d'accordut mën na dem ay ci juridiction bi gën a kawe ñu àttewaat leen c'est-à-dire il faut que état aussi di protéger ay doomam il faut état di protéger le commandant bi nga xam ne il incarne l'état protéger lu gouverneur protéger le le le maire ma ne ñooñu duñu du état du leen sànni noonu état lañ fa nekkal. mais que jàpp nga ne seen recours boobu lu recevable la. non si si c'est recevable maintenant euh, jur la dernière juridiction bu àttee nag mais la mu àttee ñëpp ñëpp ñëpp dem ci bu joxee dëgg ñii ñi ci des xam ne il faut se plier mu jeex mais le sous-préfet le préfet il agit au nom de l'État kon bu fekkee ni am na jafe-jafe bu ko dab. ci li muy agir au nom de l'état état boobu dafa war a ñëw taxaw ànd ak moom soutenir ko jusqu'au bout. mais mais mais mais état laa wax de. Mhm. waxuma Macky Sall politique. Mhm. waxuma loolu actuellement état moo am devoir ñi nga xam ne moo leen samp ne leen liggéeyal leen ma liggéey bii ñu am ci tolof tolof état dafa war a taxaw ànd ak ñoom jusqu'à la fin. d'accord li ngay leeral nii monsieur le maire moo taxoon euh, président Macky Sall bi mu nekkee njiit réew mi waroon na fexe bañ a nekk chef de parti kon leeral yi yëpp naan euh, en tant que état en tant que euh, parti APR ndax tey opposition bu la neexee dañuy jël Macky Sall en tant que chef de l'état sax def ko njiitul APR mais bon onze recours est-ce que acte beeg càmbar beeg yooyu du tax ñu mën a dàq élection yi ndax am na ñu njort loolu. ñun ñu dimbali rek loolu moom mënul lekk moom kon ba kon marche bëri di. waaw li ngeen toog sonn li ngeen toog dafa bëri. et puis voilà il faut ñu renouveler nit ñi amaat légitimité mën a commencé waat dëgmal cinq ans yoo xam ne di nga ci mën a dérouler de grands projet hmm. mais à un moment donné finalement day day kii te euh, le président de la république l'a dit hein il n'est pas question de reculer les élections pas question wax na ko yàggul matul sax trois jours. Hmm. donc euh, opposition dañ parewul waaye bu ñëwoo sëgg. non mais xam nga tamit tey opposition bi am na loo xamante ni ñoom mën nañ ko bañ a nangu ndax suñu gisee ne tey cour d'appel cour d'appel daf leen a jox dëgg ñu gis ne ñoom loxo ministre de l'intérieur wala loxo Macky Sall dafa nekk ci ginnaaw recours yooyu problème mën na am mais da ci war a nekk parce que ñooñu déggoo la ma wax préfet yi ñooñu la ñuy liggéeyal c'est-à-dire état chaîne bi noonu la le le le ministre l'intérieur amul droit seetaan un préfet wala bu jàpp ne daa nekk ci dëgg ñu di ko neewal doole wala ñu koy bundu xataal te loolu baaxul sax ci état day fragiliser état mm-hmm. état dafa war a rigide taxaw dëgër maintenant en respectant bien sur la loi en respectant euh, beneen aspect bi nga xam ne daf fi nekk muy le pouvoir judiciaire bu ñu demee ba ci euh, euh, la dernière cour bi war a àtte l'instance suprême bu àttee bu fekkee ne dina dafa dëppoo ak li li li li li commandement territorial bi bëgg ñeneen ñi nañu plié wu bu dëppoo ak li opposition bi bëgg na commandement territorial plié wu mais tant que tant que demuñu ci dernière juridiction bi mais waxu waruñu wax nekk kenn na ko da war plié wu par force kenn ku nekk am nga droit def say recours ba ci vraiment phase ultime bi maintenant ki nga xam ne nag fala mbaxane doone benn fa la mbaxane mujjee waaw <laughs> fa mbaxane mujje bu boobaa nag lu ñooñu lu ñu décidé ah amut kontaan naa ci amut kontaanu ma ci ku ñëpp dañ ci plié wu. d'accord mais monsieur maire euh, euh, li nga xamante ni mooy violence politique bi dañu gis benn cadre unitaire de l'islam boo xam ne dañoo bëgg way politique yépp signé benn charte boo xam ne dañuy fexe ba euh, ba jàmm am charte boobu am na ñenn ci opposition bi ñoom nee nañ du ko signé yow lan moo ci sa xalaat. bon initiative bu baax la mais Sénégal waroon na romb foofu. ba nuy woote ba léegi en deux mille vingt et un deux mille vingt deux waroon na noo mën a woote ba pare te muus sax du ci xosi muus sax duñu ko ci sànni xeer cest à waroon ak li nu am ci expérience élection tey suñu niveau waroon na romb ci di xalaat violence ci élection wax da ngeen di jaay doole. yéen nga xam ne yéenay yéen euh, pouvoir bi Macky Sall mooy jaay doole mooy jël ay nervi euh, mooy dóore daal. non non non non dóoruñu kenn jaay ñu kenn doole. wax naa ko ci benn émission avec sa benn confrère bu ma invité woon euh, fois opposition ñooy def provocation. ngeen dóor. non du dóor. non non non non xam nga ñoom bu ñu provoqué bu bu bu kii amee tuuti rek accourant amee tuuti rek ñu ne dañ ñoo dóor mais wax naa que Ziguinchor par exemple ce kii est arrivé là-bas waru xew ji li su ma nekkee ki yow ci benn dëkk bi ñu bokk bëgg-bëgg di xëccoo li élégant ci man. mooy tànk xëccoo bi jàllut naay moytu sa buntu kër yow yow tamit moytul sama buntu kër bul di jege sama buntu kër moo gën a élégant ak foo mën di dem mën nga jaar feneen ba éviter sama buntu kër parce que boo jaaree ak sa mbooloo sama buntu kër fekk sama mbooloo sama biir kër accrochage mën na am. mais fa mu doon dem. Euh, mënoon na mënoon na jaar feneen. non non mais par élégance par élégance c'est-à-dire Ziguinchor Sénégal fa la neex circuler mais par élégance man maa war a. non par élégance par élégance li waroon a am par élégance dëgg man li ma tuddee par élégance mooy. Mhm. opposant bi nangu ki nekk pouvoir mën a ñëw ba biir këram def fa doxu nemeeku wut fay militant ki nekk ci euh, pouvoir bi mën a nangu opposition dugg biir këram. loolu mooy élégance non parce que mënoo maîtriser say militant mënuma maîtriser samay militant mënul lekk. bu fekkoon ni yow boo ne say say militant bu bu bu kenn wax ñu noppi ok mais am na des gens yoo xam ne bu ñu seenee ne ah euh, nitu jiili Seck yaa nga ne la première réaction mooy saaga leen. waaw mais yéen a leen ko wanul yéen ñi nga xam ne yéen dirigeant yi non yéen yéen yeew. non non du loolu. en réalité euh, militant yi le sénégalais lambda ci boppam ah ñoom demee noonu bu ñuy far dañuy gelé dañuy far ak gel. nga xam ne lu même même boo bokkut ak ñoom idée sax idée donc bu ngeen ko bokkut ñu saaga la mais xoolal li xew ci réseau sociaux yi ci ay saaga ak wax ju ñaaw ñooñu boo ci boo leen séenee ki nga xam ne yaa ngi ci réseaux sociaux yi di ko yàbbi musiba seeni ñaari caravane buy rombante nga yaakaar du ngeen xeex du ngeen laale cest à fi mu nekk nii en tout cas li mooy conseil ñëpp mooy kenn ku nekk ngir yàlla d'ici le 24 janvier 2022 ñun nañuy éviter jaar ci wetu kër suñuy adversaire mais mais ba euh, ñi wax na duñ signé kii li nga xam ne mooy charte boobu ndax dañu ne réew mi dafa am benn charte muy constitution bi loolu lañ bëgg président Macky Sall euh, respecté ko. mais président de la moo gën a respecté euh, constitution bi ñëpp moo ko gën a ñëpp c'est-à-dire aussi malheureusement Sénégal dañu dugg ci benn ère boo xam ne fa nu jëm xamuñu ko l'ère du populisme. leer du populisme te damay ñaan Sénégal yi nañu jàngataat populisme fi mu jaar fépp échec la fa bàyyi désolation guerre civile muy Brésil muy ay nucléaire sari à mu baaxul opposition Sénégal nag fi mu ne tey ci populisme rek la ñuy dox. fi mu ne non non non non non fi mu ne bu ñu romboon fii tey mu wóor leen ne ki nekk fii c'est un responsable politique de la paire. mën nañu simuler tuuti alors ñu ne dañ ñoo attaqué mu nekk nii lim li li war mooy nanu nawloo Sénégal yi nanu nawloo militant yi di dox ak ñoom ci dëgg bàyyi wut bës bu metti bi bàyyi populisme bu metti bi. waaw mais yéen itam ngeen bàyyi di xoqatal seen i adversaire. xoqataluñu kenn gis nga jili li ma la wax nii manoo loolu laa gëm duñu xoqatal kenn gisoo man ba ba élection yi jàll bu soobee la fu sama adversaire politique nekk dinaa moytoo jaar foofu élégant mais li ma wóor mooy le 25 su ma fa jaaree du ñu xam sax ne jaar naa fa. d'accord léegi mais boo fa jaaree ci diggante bi euh, élégant wul wóorul. nanu moytu wante. d'accord ba fan yi jàll. d'accord jërëjëf euh, monsieur le maire Djibril Thiaw yow nga nekk euh, maire bu reefan reefa nekk ci département bu Bambey yow yaa nekk directeur général bu centre de formation et de perfectionnement des travaux publics léegi yow euh, commune bu Réfane euh, da nga koy da nga koy xëccoowaat yow la ñu investir foofu ci Benno Bokk Yaakaar euh, ndax am na ñu nekk biir Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne bëggoon nañu toog boobu. Ah, dégg naa ko mais wóoruma parce que waxuñu ko ma dégg ko. Euh, bon damay dégg ay rumeur rek man nag wax dëgg yàlla du ma du ma du ma dox ci rumeur mais dégg naa daal am nañu am na keneen ku bëggoon loolu moom dégg naa ko. Mm-hmm. mais instant bi euh, ndax jàpp nga ne tey euh, ñi ëpp ci benn bokk yaakaar yow lañu àndal. ah oui ni ma koy nattee mooy en 2014 bi ñuy gagné nous avions 44 conseillers. yoo xam ne APR la 44 conseillers yi ba tey nii may wax ak yow 43 yëpp ñu ngi ak man benn conseil moo ci xàjjiku àndatul ak man kon damay jàpp ne kay benn boo yaakaar ñu ngi ak man ba léegi mm-hmm. ah sur 44 kenn rek moo moo moo moo moo génn te 12 yi bokkoon opposition 4 fekk si nañ ma ci kon fi may wax ak yow sur les 56 conseillers de la commune de Réfane maa ngi ci quarante 43 plus 4 47 waaw. conseillers mais est-ce que tamit euh, def nga fa lu tax euh, ñu war laa falaat par exemple tey euh, ci wàllu électrification wala santé wala éducation lan nga fa def loo xamante ni tey ñi lay dégg dinañu xam ne effectivement kii lii muy wax nii nii la demee. waa liñ fa def de ay la yoon bëri na ci ci plan yépp nag. lan ngeen def ci mbiru euh, électrification wala mbirum ndox. électrification ba ñuy ñëw euh, je pense trois ou quatre villages ñoo amoon courant ci commune bu Réfane tey fi ma wax yow commune bu Réfane village yëpp am courant lenn li mairie bee ko def lenn li ASER moo ko def jaarale ko président la république moo ko def jaarale ko ci ASER mm-hmm. loolu du bilan. dëkk yëpp am courant yëpp am na yoo xam ne nag tàkkagul mais li ñu gëm mooy balaa moo yàgg dina tàkk. comme def nañu installation yëpp ba pare loolu bilan la je pense euh, boo ñëwee ci éducation Réfat amutoon lycée ñun mairie ñoo tabax lycée ba ñun ñoo ko tabax la fa nekk li ñu koy tuddee lycée ñoo ko tabax ñoo monté dossier bi ànd ca yaadu jurbel ba président de la République autorise autorisé ñu ouverture de classe de seconde léegi lycée bi dem na cycle complet depuis daaw jéeg ñu ngi am ay étudiants ay élèves yuy def bac. am na bac waaw depuis daaw jéeg. donc année bii mooy seen troisième génération ñu war a def ba yow yow bi nga fay ñëwul euh, commune bu Réfane amutoon lycée. ñaari collège la amoon benn CM Réfane benn CM Ndereb zéro lycée léegi CMu Réfane bi euh, transformé nañ ko lycée créé nañu CM Réewmaawo CM bu Réewmaawo aussi la fa nekk encore une fois c' est la mairie de Réfane. mais Réfane biir am na collège ba tey. waaw non c'est-à-dire lycée bi. cycle long lay doon. day dem sixième ba terminal. day dem sixième ba terminal voilà. CMU réew ma aussi la fa nekk ñun la ñoo defar dossier bi ñoo ko déposé au niveau de l'IA andi ci ak IA tabax classe ya def def def ci ay ay table banc ba lépp ok ñu ubbi CM bi. kon léegi daal euh, boo jàngee si commune bu Réfane boo fa jógee mën nga dem université directement boo fa jógee université nga ay Bamba yeeg da ngay jàng ba am bac dem université. loolu def nañu ko ci éducation. te ma fàttali ne lycée ak collège conseil départemental la waroon. mais ñun dañu ne conseil départemental bu défaillant duñu ko xaar. parce que tuddee ko bu défaillant. parce que daa deful li ko war a def fa may tabax fa ma nekk di tabax lycée moom moo ko waroon tabax. fa ma tab ah. Fatou Sène waaw conseil départemental Bambey président bi ànd ak Aïda mm-hmm. fa ma dem réew ma di taxaw tabax ab moo ko waroon def. mais yow loo wax force nga laalaale tuuti Aïda Mbodj. loolu non parce que Aïda en réalité ci ñi tardel département Bambey la bokk. Aïda Mbodj ah malchance su Bawol malchance su département de Bambey mooy très souvent leader ya fay émerger dañuy fàtte Bambey mais di def seen promotion di def seen culte de personnalité di wane seen bopp. comme kan. non bëgguma stigmatiser bëgguma citer mais depuis les indépendances bu ñu amoon des figures yoo xam ne dañuy fàtte seen bopp jël Bambey teg ci kanam kon ba léegi romb nañu fii mais koo fi fal koo fi jiital day jël boppam teg ci kanam. di defar image am di di di di xool nu muy def ba jaay personnalité am pour ñu naa diw diw diw au et en euh, à côté ñu ñu bàyyi Bambey ak askan wi en rade. mais loolu tamit est-ce que valable ci ayug Macky sàll gi aussi ndax même Aïda Mbodj bu dee ayug Ablaye Wade la woon ayug Macky Sall gis nañ Mor Ngom nekk na fa ministre Pape Diouf nekk na fa ministre aussi ministre de la République yor portefeuille. ñoom tamit waaw. du ma cité tur du ma mais dama ne généralement loolu mooy problème non dama yaakaar ne da nga ko bëggee jagleel rek. Euh, non non généralement kay. <laughs> généralement. kon kon kon kon Mor Ngom ci la bokk ak Pape Diouf. du dégg loolu du ma cité du ma stigmatiser. waaw mais bawal nag euh, dañuy faral di wax mais. am nañu non mais mais waxuma mais dama ne. mais en ma ma waxaat encore ak waa bawal tànn bu jotatee nanu tànn ñoo xam ne pare nañu pour fàtte seen bopp jiital bawal. léegi kon yow danga jàpp ne ñañ fa jot a def ministre. ñu waroon a am benn taxawaay même bu dee ministre de la république lañ waroon am benn taxawaay en tant que doomu Bawol jàpp nga ne taxawaay boobu ñoom amuñu ko. déggoo ma de waa Bawol bu ñuy politiqueati <laughs> di wut ku ñuy àndal. Ah. nañu ànd ak ku mën a fàtte boppam teg Bawol ci kanam. d'accord léegi euh, lu jëm ci wàllum santé est-ce que am na loo fa réalisé. waaw mbirum santé hmm, déjà dugal naa fa ñetti ambulance ah bon waaw. Ah benn bi Réfane poste de santé Réfane benn bi poste de santé Réewmao benn bi case de santé Mbambey. mais fekkoon nga fay ambulance. benn laa fa fekkoon te benn booba waa fondation Sonatel ñoo nu ko joxoon te sabab ba lu ca bëri boob ci ñun la woon àndoon ci ak à l'époque président ki jiite woon commité de santé bu Réfane muy Mbay Jonn mm-hmm. mu nekk Jurbel sababu ambulance boobu ñu fondation Sonatel joxoon sababu boobu ñun ñii la ñetti ambulance yi ma la aussi bi ma nekkee maire laa ko fi indi euh, ma nga may ma aussi vraiment ma ma sant gërëm euh, comme on parle de santé le champion Mohamed Ali Ndiaye yónnee nañu benn ambulance pour le poste de santé de Réfane ne moom mooy xamal sax ne euh, ambulance bi yegg si na port tey ci guddi donc dinañ procéder à l' enlèvement pour mën ko léegi wax sant gërëm aussi diaspora bi bu nekkal foofu Euh, ñoom may jël sant be gërëm bi teg ko ci loxol mbaketin Tine vraiment mu tas ko ci diaspora bi nekk Italie yëpp mention spéciale au champion Mohamed Ali Ndiaye. d'accord léegi euh, monsieur le maire waxtu wi léegi mu jot euh, ban appel ngay lancé jeunes yi nga xam ne tey ñoo dëkk ci commune bu Réfane wala département bu baam bu Bambey. li ma leen di lancé comme appel mooy ni ñëpp mobiliser wu parce que tamit mënuñu ne dañoo bëgg a defar dëkk. bàyyi toujours mag ñi dañu ëpp Pastef jeunes yi lañ jóg impliqué wu ku nekk nga laaj li nga war a laaj def li nga war a def mag ñi seen wàllu wéy na bu ñuy wut pour defar mais pour jeunes yi tax mais quelquefois euh, engagement jeunes yi surtout ci politique bi day xaw a des par rapport ak mag ñi alors que ñun ñoo waroon gën a sawar mag ñi mais aussi. Euh, nañu waajal suñu bopp comme lu ma oustaz Abdou fay yal na ko yàlla xare aljana te taas na ci barkeem li ma doon wax dama doon wax ne ndaw day waajal boppam. dootul day waajal sa bopp. waajal sa bopp mooy nga jàngi fa nga war a jàngi xam la nga war a xam jàngi métier ba ba mu jotee jàngi xam-xam ba mu jotee bu bu ëllëgee booy bokk ak mag ñi kenn du la ni génneel sa loxo. d'accord léegi euh, monsieur le maire yow bu la falaatoon tey maire. Euh, lan nga fay defaat comme lycée am na fa CEM am na fa électrifié nga village yooyu yëpp village euh, am nañu ndox lan lan ngay fay defaat lu bees bañ a làqatuwaat ci la nga fa njëkkoon a def. waa euh, li ñu fa fas yéenewaat defaat parce que tali bi aussi maa ngi lay yëgal ne def nañu attribution provisoire ba pare maanaam tali bi nga xam ne dafa war a jógee Kaba. Mhm. dem Refane. rang rang la woon dañ koy goudronné def nañu dépouillement bi ba euh, def nañu attribution provisoire xam nañu entreprise bi ko gagné. te yaakaar naa bu ay recours amul yaakaar naa dina commencé. loolu premier mandat bi waaw waaw mais commencé guñ ko quand même. waaw mais voilà premier donc loolu. taalit nañ ko yeggale kon. Hmm. ensuite euh, dañu wax léegi mbirum santé euh, peut-être waxuma la sax ne tabax naa case de santé boox tabax naa case de santé nguy càndige tabax naa maternité ndereb fii may wax ak yow maa ngi tabax euh, logement sage-femme ndereb di tabax logement sage-femme réew maa mais kon kay yow yor nga xaalis monsieur le ndax yow sànq. non dañoo takk dañoo takk ceinture bi rek dañoo serré ceinture bi rek c'est-à-dire euh, ñun suñu suñu recette de fonctionnement li ci ëpp dañu koy jël viré waat ko ci ci ci ci ci investissement parce que toujours je oga aux gars ñun li luy fonctionner bu nu amee carburant rek. boo xam ne oto bi mën nga ko ci def dem dellusiwaat yu ci bëri mën nañu serrer la ceinture li ñu waroon def ci fonctionnement dañ ko delloo investissement ñu noonu la ñuy fonctionner depuis depuis sept ans mm-hmm. da ngay jël recette de fonctionnement récemment rek jël nañu 19 millions yoo xam ne ci fonctionnement la nga xam ne mën nañ mën nga ci jënd carburant mën nga ci changer sa bureau mën nga ci changer climatiseur ñu ne déedéet nañ ko yóbbu investissement ndiire nag seen bi nga xam ne moom rek ñu desewoon amul courant ñu defal leen ci courant ñun noonu la ñuy fonctionner parce que tamit loolu la askan wi xaar. kon yow soo falwaatoon di nga di nga yokk poste de santé yi euh, mën nañu am beneen lycée aussi. waaw centre de santé déjà euh, démb rek ñoo ngi ñoo ngi am audience ak euh, le ministre de la santé finalement avec son directeur de cabinet ma àndoon ci ak waa ASAD. Mhm. le président Daouda Diouf. mais aussi ñu àndoon ci ak Khadim Samb nga xam ne moom daa bëgg bawol mhm. lu yëngu bawol bu jóg maanaam autorisation pour centre de santé bu Refane kooku moom c'est c'est ok te ministre bu aussi il engagé accompagne ci avec un BCI donc loolu euh, ñu ànd ko ak waa dëkk ba de pas un projet de la mairie seulement mais mairie da ànd ak waa Assad ak waa dëkk ba yépp ñu xool na la ñuy def ba très rapidement centre de santé boobu taxaw nga xam ne poste de santé yi bu ñu jaaxleetee du ñu yónnee Bambey. d' accord léegi léegi monsieur le euh, dañu gis ne ay maire yu bari ci monde rural bi bu ñu gérer ay direction wala ay ministère pour ñu dem seen dëkk dafay faral di jafe yow est ce que maire nga boo xam ne jege nga jegeyantoo nga ak askan bi. askan euh, foog naa ko de xaw ma xaw ma nag nu appré askan wi apprécier mais man daal foog naa ne jege naa askan wi. lu koy firndeel. Euh, sept ans yii sept ans yi nga xam ne maa ngi fii ci direction bi nekk ko maire en même temps. Euh, chaque année c' est 52 semaines boo ko multiplier par 7 day nekk ay cinquante 350 360 semaines li ma wóor mooy trois 360 semaines yooyu li ma ci toog semaine bu ma demul Réfane matul 10 semaines matul 10 semaines chaque semaine dem naa Réfane au moins une fois yenn saa yi ma dem fa deux fois wala trois fois dans la semaine kon foog naa ne jege naa. affaire est-ce xew nit ñi di ko am ni bànneex ni mbégte wala leneen ak leneen. monsieur le maire Djib Thiaw maa koy fekkee. lu ma ci yëg muy Dakar muy Réfane dem naa ca wala yónnee naa ca lu ma ci yëg laa wax de. est maire bu social nga. foog naa ko. mooy loolu firndeel. ah mooy euh, ku ku am sa xew bu ma fa mënee taxaw taxaw fa su ma amee dërëm jox la su ma amul dërëm ne la masa bu dee lu metti bu dee lu neex ma la ndokkale su ma amee dërëm jax la su ma amul dërëm aussi ñëw bokk kook yow. mais est-ce maire bu man a mas laa nga mën na ma maslaa mais am na yoo xam ne ay léwén du ci maslaa parce que tamit quelquefois il faut ñu nit ñi foo ñu tàmm ci taxaw ci dëgg taxaw ci dëgg euh, bu fekkee nag mën nga maslaa te du yàq dara maslaal mais maslaal bu naree yàq taxawal ci dëgg. jërëjëf monsieur le maire ñoo leen sant di la gërëm. kontaan naa ji li waaw mais bu lii di gëj dama leen di namm yéen waa réew mi. <laughs> jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf monsieur le maire Djibril Thiaw mbokk yi moo nekk maire bu Réfane Réfane nekk ci euh, département bu Bambey région bu Diourbel moom nag mooy directeur général du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics moom lañu ñu woon ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadir Seck bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak